dañu fay ñëw pour def évaluation mooy ñaari at yu ñu jot a liggéey ndax dafa am ay ndaw yoo xam ni ci ci société bi lañ nekk couch couche ay si couche ay couches différentes ñii ay enseignant lañu ñii ñii ay instituteur lañu ñi professeur ñii ingénieur ñii ay boulanger ñii façon couche bu nekk ci société bi rek moo ci biir cadre bi war na cee mën na sauver Sénégal muy le président Idrissa Seck bañ ko defee taxawal ko di ci liggéey ba toll jëmi jamono si la jël suñu feuille de route dem ci président Idrissa Seck tegal ko ko ne ko président Idrissa Seck ñun ay ndaw Sénégal lii lañu xalaat pour yóbbul à la magistrature suprême mënuñu naka ma ni fexe ba seeti ay ndaw yoo xam ne 16 ans 17 ans 18 ans. fii ak 2017 dañu am âge voté ñu inscrit leen ci liste électorale yi ñu meloon ñu jëli leen ñu bokkul ñu parti ñu jëli leen ñu xuloo ci biir parti bi te ñëwatuñ ñu wooyu leen dajale sa njaboot gépp pour ñu yem au même pied d'égalité ànd di xàccandoo di dóorandoo pour yóbbu la palais. yaacaaral boo ko waxee loolu dafay xaw a jaaxal ndax ñu yaacaaruñu ndax ndax boo déggee ma boo déggee ma wax loolu ñun CREI bañ ko sampee deux deux ans ci quartier yi la ñu commencé ñu ne bu nekk foog ñu wut fi ay cellules ay cellules yoo xam ne dañuy dem ci jeunes yi waxtaan nañu en deux mille am na ñu bëri ñoo xam ne juddu wuñu woon te xamuñ kan lan la président Idrissa Seck jot réalisé biir Thiès ak lan la liggéeyal état Sénégal. jeune bu amul conscience ci loolu boo ko bëggee wax ITSEC da nga koy tànkal ci wax il faut que nga dem wax lu ITSEC jot a def ak ITSEC fu mu bëgg a yóbbu Sénégal ba mu xam li nga ko wax nga mën koo mën a jël jëriñoo ko loolu lañoo jot a def ci quartier yi jeunes yooyu noonu ñooñu doon suñu sentinelle ci quartier yi ñooy seet les membres yoo xam ne ànd ñu woon ak ñun association yoo xam ne ñoo ngi ci quartier yi te dañu fubal te defuñu ànd ñu woon benn parti ñu jéem leen seeti indi leen si suñu par parti de ce fait comme question bi nga posé léegi dafa am solo commission liste électorale bi bëriwul mais ñun de ñoo ngi ci xar suñu tànk tubay ba suñuy nit ñoo ngi leen di jël di leen yóbbu ñu inscrire tey ci kaw loolu damay lancer appel président de la république du Sénégal ne fekkee bëgg na lu leer fekkee bëgg na Sénégal lu jàmm fekkee bëgg na Sénégal. naat comme ni mu koy waxee neuf quatre électeurs ñii ko am bu ñëpp amee si lool si instant boobu dañuy doog dem quatre dañuy doog dem incha allah élection ñoo ngi lancé appel président de la république bu mu def loolu. man damaa joom mi xaw ma dama jaaxle ndax bu Macky Sall président Macky Sall waxee ni Sénégal émergent lañu nekk Fatick nekk ville natale fatik nekk dëkkam mu juddoo ne bu ñu juddoo Fatick jànge Fatick yoroo Fatick xam lu Fatick jafe-jafe yi Fatick am mu dig leen loolook loolu dem ba jëmmi jamono ay ndaw yooyu ñu jugoon bu fekkoon Thiès la dañuy wax gars yi dañuy saboté mais ay ndawu dëkkam yoo xam ne ñaar mu dig leen a dig ba sonn te li mu digoon dara mun cee ne ndaw yooyu def révolte mun de leen tëj c'est déplorable te loolu ñoo ngi koy ñaawlu fu lu yem te yemul foofu boo leen xoolee de am na fii six mois ci ginnaaw hôpital Fatick dafa grévoon ci ne amuñu ay fajukaay est-ce que loolu normal na ci ñu ni pays émergent kon président Macky Sall bu ñu tànkal ci ay slogan ñu dañoo sonn ci ay slogan ndax ñun bu ñu nee euh, pays émergent lañu nekk dafa war a fekk ni hôpital bi baax na dafa war a fekk ni jàng bi baax na dafa war a fekk ni faj bi baax na dafa war a fekk ni étudiants yi am nañ ci seen bourse dafa war a fekk ni jàng bi baax na mais bu dara baaxul nga ni pays émergent lañu nekk kon nag ñun moom naxuñu boppam lay nax mais nag yaakaar naa ne Sénégal yi nañu ñoo ngi xaar ndax ñun léegi ñu di toj. nekkuñu te ñu di sànni xeer nekkal tu ñu di yuuxu nañu def suñu kéemtu laaj kàttan ñu ndaw ñi dem inscrire ci liste électorale yi bu ëllëgee suñu carte d'identité ak suñu carte électeur mooy suñu arme ñu génne ko fi comme ni ñu génnee Yaya Jammeh incha allah te incha allah rabbi dinañ ko woon exemple en comme en 2019.